mi laa tudd Oumy Diagne manifestation bi ñu fas yéene euh, tale suñuy bakkal lekk lum ñu jaral ñu lu ko jaral moom ba mu def testament ñun ñu fas yéene ñu ko jaral parce que ñun ñun ñoo war a xeex suñu réew ñun bu ñu toogee kenn ñu xeexal ñun ñun suñu réew tubaab bi avant ñoo développé dañ doo xeex soo demee si ñoom di seetaan seen histoire dañoo xeex seeni i peuple seen i jeunesse xeex ba ñu am lu ñu am léegi ñun jeunesse bi bu ñu xeexul même ñeneen ñiy wax ne ñëwuñu ñoom bu ñu ñëw ñun nañ leen xeexal bis bu ñuy réussir suñuy doom la ñuy réussiral suñuy sët ak ñeneen ak ñeneen loolu la ñuy réussir ñu fas yéene nag def testament ma ñëw uniquement pour manifestation bi ñu autorisé wala ñu bañ a autorisé ah <laughs> yow gis nga rek. ñi da lañ koy teeru fas yéene koo teeru comme ni ñuy dalalee bu lum ñu jaral ñu defal ñu lum ñu jaral lum lum leen jaral ñoom ba ñu fexeem ñoom manifestation bañ a am ñun jaral nañu ko di piw ba nga xamante ne euh, sarà la manifestazione sarà possibile che la faremo in qualsiasi modo in qualsiasi momento la faremo la manifestazione perché, perché siamo noi che dobbiamo, che euh, dobbiamo risolvere euh, il problema che c'è non che gli altri devono venire qua o gli europei per risolvere il nostro problema. Siamo capaci